aasubillah bismillah inna waliyallah wacal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawer wa xalbi arsida barke borom tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina waa UK waaye nag rawatina waa London ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di yëkkati suñu kàddu nag di jëte ci nuyoo bi ak ziar bi sahibul fadila Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal yàlla mu gën a yàgg lool gën a wér kasaalika Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mboolem kilifay diine yi di nuyu nag waa London waa dayratu wakaana xaqan xale laa nasrul muminina ci njiitul liggéey bi jëw la njiit Serigne Abdoulaye Dieng faw say ni ak mboolem sang si nga xam ne ni ñoo bokk ñoom nekk fii di liggéey te ñuy waa kër Serigne bi buñ tuddee Serigne Abdou Akim Mbacké tudd sëriñ Abo Mbacke tudd sëriñ Saliou moom sëriñ Abbas moom maam Thierno Birahim di nuyu ñëpp rek ak kilifa yi mag ñi nga xam ne nii ñoo ñoom ñoo bokk nekk ak ñoom fii ci gox bi di London ci daayirat wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin ñu yëkkati nag tey suñu kaddu muy kaddu cant ak ngërëm ndax danoo yëkkati woon suñu kaddu woote muy ab jaayante liggéeyal sëriñ Tuubaa muy wutal sëriñ bi kër muy kërug lislaam yàlla dogal bi ñu ko wootee ba nëgëni nag gis nañ ne diir bi yàggagut ndax ñaari weer yi bu tegoo it li ci tegu waaye gis nañ ne wax dëgg yàlla li fi dugg ci addiyee ci jaayante yi kawe na suñu yaakaar ah li tax loolu nag moo moo waral itam gannaaw woo nañ leen ngeen wuy suñu te li taxoon ñu woo leen itam jëf ngeen ci wax dëgg yàlla yéen ngi ci jëf bu baax a baax waaye nag jëf ci daa des ndax lañ war a am ngir war a mën a am daara ji muy kër sëriñ bi daa matagut moo tax ñuy yokkaat suñuy kàddu di woote waat képp koo xam ne ni joxe woon nga nga joxewaat képp koo xam ne joxe googu itam nga joxe te ñu xam itam ñiy joxe ñun ñëpp ñoo bokk yéene ndax sëriñ bi la ñuy wutal barab te barab boobu ñuy wutel sëriñ bi sëriñ bi moom xam nañ ne lépp lu wax borom moom borom def na ko ndax moo waxoon ne yàlla defal ma sama kër yëpp di ay jàkka te loolu mi ngi feeñ feeñ googu nag moo tax ñu woote nun waa London wa waa daayiratu wa kaan xaqan xale na nasul mu'minina ngir fas yéene képp ku di jullit na ci àdduna bi rawatina nga nekk fii ci UK bi waaye na nga rawatina nga nekk fii ci London ñu ngi tàllal suñu loxo di la woo ci at yu ñu doon woote ñu xam ne lañ doon woote ba tey ñu ngi ci matagut di wax rek ne yëgal nañ ko itam fédération bi nga xam ne nii mooy yastabsiruna bi nihmatin te Cheikh Mouhamadul Mountakha jox ñu ndigal ñu tudde ko tur woowu moom moo ñu tudde tur woowu mboolem daayira yi fi yëpp di fukki daayira ci fédération bi yëgal nañ leen ko waaye nag ñoom itam xam naa ne ñi ngi xaar seen seen addiya ci kër gi ndax jëf ji jëf la joo xam ne nii ñun ñëpp ñoo ko bokk duñ na rek noon waa London waaye nag waa adduna bi la ñuy woo gannaaw woo nañ waa bi kon rawatina waa waa UK bi di waa ah ñi nga xam ne yàlla dogal itam am nañ yéene jëf ci bisimilah bunt yi ubbeeku na ñi ci sant nag bu baax a baax a baax waa lesta daayiratu jësbul mu jësbul xulóob sëñ maam Thierno Diaw jiite ko wax dëgg yàlla ñoom ñëw nañ ak seen yéene ak seen pësteef jëf nañ ci jëf joo xam ne wax dëgg yàlla xañ na duñ ne guleet waaye nag jëf la jëf ju am solo joo xam ne ci yéene ak pësteef lañ ko teg kon nag yeneen mbooloo yi nga xam ne ñu ngi fi ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp tam ñu xam ne kër gi waa London rek moomuñu ko waa UK bi yëpp ñoo ko bokk ndax bu ko xasee am képp koo xam ne nii am xew-xew wala nga wala ñuy woote xew-xew am nga sañ-sañu teew ci ñu ngi woo ñëpp nag di ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba rek mu defal ñu lu kawee suñu yaakaar ndax euh, la sëñ Abdou Lahad waxoon la wax rek Serigne Touba moom boo ko defee loo man mu defal loo mënut nga defal ko loo mënut mu fay loo jomb kon dafa mel ne li dëgg dëgg liggéey bi nag moo ci jëfal sëñ bi lu jëfal Serigne Touba loo xam ne mënuñu ko su ko dee mu fay ñu lu ñu jomb lii nag ñoo ngi koy wootee te di ci ñaan tey sàkku képp koo xam ne dégg suñu kàddu ak foo mën a nekk rek nga xam ne kër gi këru Serigne Touba ñoo ngi koy woote di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ak tey soo soññ ci tam soxna yi nga xam ne ñooy daayatul waa kaana xaqan xalee naa nasul moom ni na ak fu soxna mën a nekk ci biir réew mi rek ñu ngi lay woo ci kër Serigne Touba googu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp tawfeex ak tey séer wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mbokk taalibe yi ñu leen ziar bu baax a baax di leen nuyu bu baax ah, ku nekk fi nga fi nekk comme ni ko eh, sëñ Fallou waxee rek ñu leen ziar yi ñëpp di leen nuyu xam naa kon ñu fas yéene dikk ak yéen ci eh, bilan bi incha allah kon xam naa bañ ko tàmbalee ba léegi moom mu mi ngi toll ci dix semaine wala wala ñaari weer ak ak ak genn wàll daanaka ci dix semaines yooyu yëpp nag luñ ci eh, jotagum ci xaalis. maanaam ëpp na 44 000 pounds waaw te compte bi jamono jii nii lu ci nekk moom ëpp na 95 000 pounds bu ñu xoolee tamit ci wàllu joxe bi ñu joxe ñëpp ñu ngi toll si 220 personnes waaw si deux cent 220 personnes yooyu ñu ngi ci am 179 sëriñ am ci 41 soxna xam naa tamit bu ñu bu ñu xoolee ci wàllu joxe bi bu ñu ko mënoon. def ay pàcc dañuy xool diggante un pound ba cinquante pound lu toll ci quatre-vingt-dix-sept personnes ñoo si joxe lu toll si cinquante et un pound ba cent pound euh, quarante trois personnes ñoo si joxe lu toll si cent pound ba deux cent pound quarante et personnes ñoo joxe lu toll si deux cent un ba cinq cent pound quinze personnes ñoo joxe. ñu joxe cinq cent pounds ba neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pounds ñu ngi toll ci cinq personnes waa mille pounds ak lu ko ëpp mu ngi toll ci onze personnes waaw kon xam naa ni mbirum joxe bi noonu la demee loolu day wane ni ci lu ñu desee pour ñu jot suñu objectif mu ngi des cinquante cinq mille pounds pour ñu pour ñu mën a euh, jot suñu objectif incha allah. léegi xam naa tamit ngir ngir leeral ni que kër gi moom 750000 pounds lay jara te 150000 pounds yi ñuy target mi ngi toll ci lu ñu naan 20 pour cent 20 pour cent maanaam boo jëloon juróom boo ko xaajoon juróom mooy benn pàcc bi maanaam 20 pour cent mooy 150000 yi ñuy ut donc bu ñu ko jëloon dina des daanaka lu toll si 600000 pounds 600000 pounds bi tamit waa waa daayra bi euh, si njiiti jooli ñi ñu ngi ci doon jokkonteeg banques yi pour jéem a xool. naka nañ ñuy mën a lebalee six cent mille pounds yu si des kon daanaka waaye banque yi ñoom ni ñu doxee moom day mel ni bu ñu ëppee bu ñu ëppalee cent cinquante mille pounds yi ci ci lay ëpp solo ndax loo gën a bëri rek ñoom seen leble gën a yomb li ngay fayte mu gën a gaaw kon xam naa day mel ni que bu ñu bu ñu weesoo cent cinquante mille moom de day xaw a gën lool tamit xam naa ngi ngir ngir leeral ni tamit kër gi moom bu cent cinquante mille pounds yi moom dañuy permettre ñu mën a toog wax ak banque bi pour ñu xool boo xam ne ñu lebal waaye xam naa ni bëri na ñu ko ñu ko yittewoo lool moo tax ñuy ñuy ñuy ñuy wootee si cinquante cinq mille yu des comme comme ça ñëpp mën see jàpp ci nu mu gën a gaawee rek comme ça maanaam suñuy chance ngir ngir jot kër gi moom mu gën a yokk kon xam naa ñu ngi leen di sant bu baax di leen nuyu bu baax di sant ñëpp di ñaanal sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ak murit ñëpp ak jullit ñëpp yàlla na borom bi dimbali